Euh, dem aji baytul haram mm-hmm. ba ma ko waxee xaw naa di si ban lool mm-hmm. ndax booba daal seet naa seet bu demee kan mooy war a jiite bi daal jaaxal na ma lool waaye mu daal di waxaat rek ci saasa rek mutul ñaari fa ne ma ne lañ ma yónni woon delloo naa leen ko mu réy fi man lool kon maa ngi sant maa ngi ko sant di gërëm ñëpp ñëpp ta nuyoo bi ci mbokki julli fi daje yëpp jiital seen nuyoo ba nag Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké Xaadim Rasul di ko ñaan mu yàgg fi di wér lool ak njabootu Seexoon Ahmadu Xaadim yëpp ak ñun taalibe yëpp di nuyu euh, sunu kilifa sunu wasila Sëriñ Ebo Mbàkke moom di ko ñaan mu yàgg fi lool ak njabootu Cheikh Modou Fadal ak yëpp di nuyu sama bokk yi fi daje yëpp nag tàmbalee ko ci sëñ Ahmadou Rafayu ak sama doom yi bopp euh, yii yëpp maa ngi leen nuyu euh, bu ma limee damay juum waaye ñëpp sama njaboot ñu ñu toog sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di ñaan nag ci seen turu sëñ Amadou Rafaay mi fi nekk nga xam ne moom moo fi moo lañ fi xoolal sëñ bi mu wax ci nawet bii mm-hmm. ndox mi ñëw ndax kat fii ci nit yi Cheikh Amadou Faara toogoon na fi ba yàlla dogal euh, nawet bi doy war lool ba ba euh, lu ci bari di dee ci ci ci ñax meeg gerte gee dugub ji mu yónni sëñ Mandiaye bi ci ci ku baax ca njaareem ba mu demee wax ko sëriñ bi sëñ bi ne ko doom wool ma ko moom dikkee mu ne ko loola na maa métti te ngay nekk fa mu ne ko maa ngi fa waaye mënu ma ci dara mu ne ko nu ngeen di génne asaka mu ne ko bu dee buñ buñ bayee buñ bayee dugub ji ba dañ koy natt fee eh, génne asaka ji def ko jàgg bu ndaw bu dee bu dee bu dee bu dee gerte gi nag buñ buñ ko buñ ko génne asaka ba noppi dañ koy xayma ñu war naa moo tool nangam eh, bu ko defee ñu génn ko eh, cib xaalis delloo delloo loola ci gerte ci gerte ga sëñ bi ne ko loolaa tax tawut daan ne ko maa ngi ñëw bi mu ne maa ngi ñëw rek bi sëñ bi ne maa ngi ñëw matul matul juróom ndox mu sotti ko kon yàgg loolu